السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله على جلوني سنت الحمد لله نكا ويكند بي اه الحمد لله الحمد لله سمير نكا ويكند بي sant yàlla ah alhamdulilah Ndiaye. naka weekend bi. sant yàlla. alhamdulilah. mbooloo mi déglu. naka weekend bi. ah waaw kon ah? alhamdulilah mu ne. sama yaay ji ci marché Sàmm ah marché Sandaga. di leen. ah Mariatou Thiaw restaurant bi ah Medina. ah la bok bokk maa ngi nuyu yaay Lac Rose ak Lac Rose maa ngi nuyu yaay Sa Thiès ak Sa Thiès maa ngi nuyu Soxna fa ah ke ndey ñang naka weekend ah ok d'accord nee na alhamdulilah ah tànn bii ja Touré marché Kermel waaw ah kon ça va anamu ana DJ Kolos mu ka mu ne ah ok d'accord ah, doomu ndey si Salif Kébé Saaw et le week c'est normal da ngay seetu ak kan ak Mbagnick Diop suus mu ne ah ok d'accord kon alhamdulilah ana ngeen ana Bersi Gueye mu ne ah Tikito, weekend bi nice charlotte isitel mu ne weekend bi sante yalla Bassirou Gueye impactis mu ne sant yàlla <laughs> ana dado studio abdou fall nee weekend bi tima oublié nice ngay oui oui oui ngay qui dit mieux mille mmh. ah s'il vous plaît mmh. oui et le week-end mmh. religieux merci ñoom seen lépp ci diine lañ ko laal anamu ma koddu Sandaga, xëy ga kase ak kase sikkinu naana ana Anna mbay suñu jabar ji ana gay sama jabar ji bees gi nice weekend cool <laughs> ah non non non alaaj connu weekend bi là. Connu kon weekend bi neex <laughs> les politiques ministre mbagne Ndiaye et le Weekend, meeting Kër Massar en ah, kam <laughs> nice Ablaye Daouda Diallo et le way mu tu étais à Podor kon nice say mbok nice <laughs> way Mohamed bun Abdallah John, début mouvementé lancement 3 asi Muslim Diakhaté direct Sen TV monsieur premier ministre bi communication Tala, oui nice c'est dans l'ensemble c'est bon alaaji la na c'est bon <laughs> monsieur le président Monsieur le président ba Maki, qui? nag day dis, ci man <laughs> week-end président mom <laughs> week-end président mom président je le risque c'est un pari risque le week-end monsieur le président mouvementé médiocre nice c'est bon cool nice good fine merci monsieur le président ak kan ak kan moom it siis le week-end alhamdulilah nee na ñibbi na ak ko dara <laughs> e ak kan non garaawul <laughs> saafara rappeur nice Moussa Diallo nice Abdou Kabir Mbacké alhamdulilah as sant yalla faja laa Akan ak kan bugaan ngay et eh, sa femme daf may dépasser la ilaha illallah ye anena ah, nice nice ah, nice à way Lamine Ba géejawaay la bok éditeur nice nena momit Akan ha maître bokor Arfan nice ah alhamdulillah hmm. Salif Jeme sama doomu ndey ami d'enfance et le week-end nice. Hmm. Adama prix ràññee nice. waa Grand Dakar moom nice. <coughs> kon kon alaaj nag vraiment week-end bi neexoon naa à part courant bi coupé. Hmm. ak ndox mi Éric Senghor Rufisque nee nice. kon jox ma communiqué. <coughs> vraiment. Aziz Aïs notaire nee na nice. message yi dégg taw. Eh. la ilaha illallah. Eh, bokk nee nice. waaw waaw ami kappal bu rafet nee na nice jabaru Moussa Diallo sabanel marché sabanel nday dibee nice waa waa waa waa nañu nice Marie Diop nee na nice eh hmm, fépp nee nañu nice xale yi di waajal euh, nee nañu nice màggalu daaru gi eh màggalu si nee nañu nice alhamdulilah waa nge nañ nice Babacar na nice waaw waaw Mounas nee na Maam Dia maire maam faatu Dieye usine benn tali ak yaay ja madame Sakho Nancy Seck cité des eaux nee nañu nice <laughs> alhamdulilah yàlla yàlla doon li jàpp ci biir réew bi Touba bokk nee na nice Jamil nee na nice Jamil nee na nice Séni Cambré nee na doomu nday Ahmed Aïdara Gueye laa bokk tribunal nee na ak kan ak kan Sidi Ndiaye xaw ma fu mu ne nee na no nice mangaan nee na nice waa association ànd doon benn nee na ñu nice tey nee na ñu nice isma nee na non kon kon ça va quoi vraiment kon alaaj hmm. ma jàll ci communiqué <laughs> non non non Basirou Ndaw nee na dafa for benn portefeuille ci turu Modou Malick Sall ak carte visa ku ko gis na nga woote ci 77 678 92 62 nee na nice ak kan ki nee na euh, Saliou Sila carte dante mu ngi fii bu dee yaa ngi may dégg ñëwal jël si ko Sila nee na nice seeni colis carte dante mi ngi fii seeni colis na ñëw ak sa carte électeur nee na nice kii kan la kii kan la. kii kan la Alpha An rajo Sénégal. nee na nice Masay Cissé carte grise DK 35 84 nee na nice mi ngi fi kii kan la Mamadou Fofana nee na non nice dara doxul. <laughs> la ilaha illallah les de la ville de Dakar nee nañu nice Khalifa Sall kay ku nekk ak moom ne nice Samba Gueye xombol laa bokk nee na nice ah ah. ndeysaan kii dee nee na ma il paraît que tonteuse n'a pas de pression car tu es tout heureux man maay nice ak kan <laughs> nice kay fii la buujoo boo déggee ñu naan booy naan nangam fii la buujoo ah ah laa ilaha illallah man maay Ahmed no stress ah Samba Gueye laa bokk ak jeex na waa nice ah jamil Samba sanc bi nice good fine très bien ah Medina yëpp nice eh, <laughs> Saint-Louis di Sénégal. maa lay nuyu. bon. si alaaj nag lii nag wane na nag sama weekend bi moom. Mm. nice good fine quoi. Mm. vraiment nice. Amina Gueye. Mm. yaay ja yaay booy Seck. nice Cambérène gazo laay Maxtaar. nee na nice. laay Maxtaar. Jili CSB nee na nice. nee na nice. borom Thiès. nee na nice. eh nee na dara dara eh Pape Penda Mama Rëbës nice ñëw alaaj daal kon nice quoi bàyyil ma dugal te dama fa Papa Alassane Sébikotane nice nice Modou ak Idisco marché Alizé nice madame Mbaye intérieur intérieur nice maam Yacine Diagne Géejawaay laa bokk nice Seydina Laay Maxtaar Sali very nice eh <laughs> la ilaha illallah nice Omar maintenance pono nice tey mu neex mootlum notaire nice Papa Gueye auto école la prudente nice mu waay la Rosette nice ndey merci kii kan la docteur Moustapha nice Modou Fall Dalifor nice Mbaye Diouf doomu ndey Balla Gueye 2 nice eh waay Samba grand maman eh, nice Andaw nice Soxna Fall nice non kon alaaj kon dëkk bi nice ah. <laughs> barke Rasulullah dëkk bi nice ah panneau publicitaire Barthélémy Dias ak association non nice. non nice. <laughs> vrai. non grand baal ma dugal contexte bi quoi parce que ñoom Bougane Gueye Dany ak seen panneau publicitaire yi ñoom seen association. non nice Ablaye Thiam Régidac. Eh, Malik Thiatou Ahmed nice Ablaye Thiam Régidac non nice. Mohamed Seck nee na dafa réer la benn fas laa ilaha illallah couleur bu weex fas bi juróomi at la am daa réer guddi àjjuma koo gis da nga ci 77 537 15 93 na non nice Lalla Kébé Konachap nice bon garaawul quoi xaaral ma dem alaaj hmm. bi moom non nice la waaw faal tribunal non nice <laughs> alaaj hmm. hmm. benn délégué de quartier le Sumaire mi ngi toll ci juróom fukki at ak benn. dëkk cité jaraaf noor 2. depuis le 29 mai. maanaam euh, euh, euh, ci fin du bi alaaji. waaw alxamis. waaw ba léegi la ni may délégué de quartier. muy mooy nag. gisuñu ko fu ñu dem nag seetlu ci ñett ñu bokkul xawma ñaar lañ leen xamal mooy ay góor a ko kidnappé te jigéen a nekk seen ginnaaw. te mi ngi fi bàyyi ay soxnaam ak i doomam. waaw. loolu. lu doy waar. délégué de quartier bu nit réeraan ca délégué de quartier lañ lay yóbbu waaye bi yoon délégué de quartier réer kon alaaji kan lañ ko yóbbu. <laughs> xanaa préfet. <laughs> ala ay mbokkam si cité Kër Jaraaf Nord 2 mu nekk benn cité bu nekk ci ginnaaw autoroute à péage bi quartier boobu nag ci Rufisque Nord euh, la bokk léegi le 29 bi passé 29 mai bésu àjjuma booru 20 heures sunu chef de quartier 51 naa la am dafa bàyyi njaboot gu sew bàyyi jabaram bu ñu jullee ba timis rek bàyyi na fa ñetti otoom yoo xam ne oto yoo xam ne da liggéey ndax moom commerçant la mais scooter la jël pare yàpp ci benn tam ne Thiès la jam bi ñëw ci arrêt Chérif toujours ci biir euh, Tëngéej ci watu euh, hôpital Youssou Mbarga xaritam bi dafa wàcc ba xaritam bi wàcce moom mu ne day continuer Thiès ci biir lëndëm gi mais bi bi mu demee Thiès ba bëri gisuñu ko samedi gisuñu ko dimanche tey gisuñu ko wax nañ leen fu mu doon dem ci Thiès jabaram rek dem na foofu Thiès gisu ko kon jotul yegg foofu wóoruñu rek jabar jaa dem na ba Thiès gisu ko gisu ko ba pare demande Mbour gisu ko dafa di bi muy dem oto ba mu fa bàyyoon moom la chauffeur am jël gisuñu ko ñu dem mbuur gisuñu ko fépp foo xam ne daal dañ fa daan dafa daan dem léegi nag dem nañu police déposer avis de disparition léegi police entendre ñu pour déposition léegi nag man mii di wax maanaam moom ñoo dendee kër mu nekk ku baax def naa déposition bi à la police jubal naa gendarmerie bu Rufisque ci brigade bi ñu ne ñu ñëw lundi pour chef de brigade bi entendre ma man waaw entendre ñu lundi lañ fa dem léegi nag ñun dañoo def loo xam ne mooy administration parce que euh, ay intellectuel lañ quand même waaye nag leneen li nga xam ne mooy côté nit ku ñuul di cosaan ñu koy wax dem ci pitaakat mu xoolal la maaman yi dem nañ fa mais maaman ñi ñu dem yëpp nee nañu dañ ko agressé te ñi ko agressé ñaari góor la yoo xam ne dañ ko agressé ci guddi gi euh, maaman yi nañu moto baa ngi nii moom mu ngi nii tëdd waaw mu ngi nii tëdd ñaari góor nag ñoo ko agressé te nee nañu agression bi jigéen ci boppam moom moo jiite dil bi moo làqu ci ginnaaw moo làqu ci ban léegi ñu ngi ñaan euh, képp koo xam ne mën nga ñëw tey dimbali la solo sol boo xam ne manche yi dañoo gudd bu verse mu sol pantalon bu bleu nekk chef de quartier am 51 ans juróom fukki at benn bàyyi na njaboot gu sew gu bari wax dëgg yàlla quartier Jaraaf Nord cité Jaraaf Nord 2 te ginnaaw autoroute APR bi te tënge ñëpp jaaxleñ kenn nelawul Mhm. kenn nelawul. ñoom affaire bi ngeen demee si njaboot gi wax nañ leen si yan condition la génnee foofu. Euh, condition yi mu génnee mooy maanaam daal jël na moto bi daal daal di taal dem. waxu leen lu tax muy choisir moto bi alors que oto baa ngi fi. waaw li moto bi nag dafa nekk koo xam ne maanaam yenn saa yi euh, yóbbu moto bi moo koy gënal. moo koy gënal waaw. waaye ci guddi googu tamit. ci guddi googu guddi maanaam 29 mai ba su àjjuma ci guddi. Mhm. bi ñu jullee timis ba pare xaritam bi nag mu ngi ko wàccee ari a Arif Chérif la koy wàccee maaman yi nag nee na ñaari jigéen ñaari góor ñoo ko agressé. fekk jigéen moo làqu sa gannaaw. fekk jigéen ko moo làqu sa gannaaw. waaw xaritam bi waxtu waxtaan ngeen ak moom pour mu xamal leen fan la doon dem ci Thiès. xaritam bi moom waxtaan ñoo moom. waxtaan ñoo moom waaw xaritam bi tamit. jotuñoo laaj jabar ji xarit bi kan la. waaw parce que si yoon bi ñoom ñaar du ñàkk waxtaan nañ fi mu jëmaax yooyu. Oh, du ñàkk ndax xarit bi daal. Euh, bi mu ko jëlee cité Kër Jaraaf Nord ci ginnaaw autoroute à péage bi toujours ci Tëngéej. Mhm. bi mu dawee tuuti. Euh, ñoo ba bëgg jege hôpital Youssou Mbargane te Tëngéej. dafa wàcc ci benn arrêt bu ñu wax arrêt shérif wàcc fa xaritam bi mais boobu ba léegi gisaguñ ko léegi nag ñi nga xam ne suñuy dëkkandoo la ndax suñuy xamee téléphoné nañu ci ay homme de loi ñi militaire lañu dimbali nañu mais démb dañ ne euh, information yi ñu am diggante ko ba Pout ñu benn euh, trace dem nañu hôpital Youssou Mbargane médecin bi recevoir ñu démb ci samedi bi médecin bi nee nañu daal àjjuma 16 heures ba heure bi ñu fa ñëwee ci booru timis samedi bi gis ke indiwuñu fa léegi ay Thiès tamit suñu dëkkandoo yi Euh, ñu ngi am ay ay xamee di gën biir Thiès hôpitaux yi gisuñu dara mm-hmm. léegi li ñu dese daal mooy ak su mbuur parce que daan na dem Thiès doog a Thiès jubal mbuur waaw mm-hmm. waaw ñu ngi ñaan daal ku dégg lii nga dimbali ñu ba pare am na ci loo xam ne sax euh, parce que am na fu ñu localiser ay ay téléphone am ci biir Dakar est-ce que jar na wax fële ca fële fële ca Sicap Karack hmm. deux téléphones am localisé nañ ko fa dañ ko fa localisé parce technologie bi développé wu na quand même pour localiser téléphone u nekk waaw Sicap Karack ca Ndakaaru ca Ndakaaru ñi localisé nañ fa ñaari téléphone am mais téléphone yi boo wootee boîte vocale ngay jot waaye localiser nañ fa téléphone yi li xaw a jaaxal nit ñi ci mbir mooy yoonu Thiès la doon dem mais yéen a ngi localiser portable bi côté Sicap Kalaak Thiès la doon dem ñu de jabaram ak chauffeuram dem Thiès gisuñu ko ñu ne daan na jóge Thiès tamit di dem Mbour ñu dem Mbour gisuñu ko léegi nee nañu localiser nañu ñaari téléphone portable am si si euh, Cap Karak effectivement ci Cap Karak ca Ndakaaru localiser nañ fa ñaari téléphone am. mbir yaa ngi bëgg a luus. waaw mbir yaa ngi bëgg a lëndëm. ku doon dem Mbour Dakar. ku doon dem ci ku doon dem Thiès ba pare ñu ne daan nga jóge te di dem Mbour say téléphone ñu localisé ko fa si Cap Karaar mbir mi daal leen dem na. dimbali leen ñu. fàttali daal moom bi ngeen demee ci Mamandi yi nee nañu euh, dañ ko agressé. bi ñu demee ci Mamandi yi nee na ñaari góor a ko agressé te dil bi ab jigéen a ko jiite te nee na ñu dil bi maanaam fa ñu dëkk la jigéen foofu lañ ko monté. waa ca quartier ba lañ ko monté quartier bi mooy. cité Kër Jaraaf Nord 2 ci Tëngéej te gannaaw autoroute ba jàkkaarloo centrale électrique ku noonu. ay soxnaam moom jotuñu kenn. soxnaam yi waxaguñu de waxaguñu de waaye nag ah soxna yi umpalew ñu xaritam bi mu yaboon ci moto bi de umpalew ñu ko te xarit bi arrêt Chérif Nord la wàcc te Tëngéej avant watu Youssou Mbargane hôpital Youssou Mbargane mhm. waaw daal dil ba ñu ko nase sa kër ga boo leen sukkandikoo ci ñu ngi ko nasee sa quartier ba ñu ngi ko maam mën yee wax de waaw maam mën yi nee nañ ñu ngi ko nasee sa quartier ba sa quartier ba te jigéen na ko nas moo lalu sa ginnaaw Benkwa la yo Nyari mamon yu digen te ou Yo kaman te ou <laughs> Mamon benen bi Gour le Agresyon la yo Mamon benen bi digen le bu yàlla may nag ci ci maanaam wàllu seet. moom it nee na ci dañ ko agressé te ñu ngi ko téye benn place. Mhm. waaw waaye ñi nga xam dañoo xereñ ci waaye affaire téléphone portable nee nañ localisé nañ téléphone yi dakaar si Cap Karak. waaw day na waar lool. nekk nii lu toll si ñaata fan ak gi. maanaam àjjuma ci timis gisuñu ko démb samedi gis na tey gis na te bu ñu oolee portable yi boîte vocale la ñu yor te moom it saa yu masaan dem bu naree guddee day woote. te wootewul ñëpp a jaaxle. ndax lañ nekk. mu nekk kon chef de quartier. mu nekk chef de quartier cité Kër Jaraaf Nord 2. ca Tëngéej ginnaaw autoroute à péage ba jàkkaarloog centrale électrique gu Kounoune. jërëjëf jërëjëf. cay waay jëlee ah Tëngéej de non nice. ah. su mel ana ñëw nañ anniversaire car bu professeur am Amsatou Sow Sidibé alaaji la woon. waaw waaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaw waaw madame la ministre eh ñëw nañu wala egg Euh, Mémé maa ngi lay nuyu de madame Gossé ndeysaan Ibra Gassama nice ok d' accord kontaan naa ci yow yaay Xadi Njaay waaw waaw ndeysaan alaaji kii suñu yaay ju baax a baax la na nga ko nuyu da lay ñaanal chaque jour waaw waaw mooy yaayu Mémé madame Gossé policier en mission ñëw nañ ah ñoo ñal lañ Daouda fan ngeen may déggal Bougane Gueye Dany <laughs> boo koy wër de <laughs> moom la wër de démb stade am na ku ne ma benn xale bu jigéen ne ma amee xam nga lu may rey ma ne ko ah, mu ne ma boone <laughs> ma ko ku tedd kii nee na day loolu day da koy reetaan loolu loolu waa jële sëñ Abdou Karim mu ne ah. Mansour <laughs> ak xew laa demoon mais xew ba daal yëpp numéro ma doon laaj aw ma ko waaye daal boo reetaanee eh, eh, <laughs> boobu noonu boobu <laughs> Nou, ala woy ma? E, ala jan woy? Woy ma? Woy ma? Woy ma? Le chale binan man lima la khamal? Mwen moun sur mi, lima kwa khamal? Hmm. Batan bengi ray? Moun hmm. sur bat bay ray? Drom yot yo aslamu alikum. <laughs> bu ko waxee nga gis xale ko wassé nan ma tonton Ahmed do ma jox numéro tonton Mansour man bat ba may ray numéro al al irshad. ci wax sax. man ci commenté. waaw. la ilaha illallah wuy ma. Daouda waaw. asalaamualeykum wa rahmatullah. Daouda du ci wax sax man. bu ci wax de El Hadj. juróom-ñetti waxtu asalaamualeykum. yow kama ko mayon suñ koñ de danaka ñaan na ba tak guñ tak sey ba ah bon nay ñang ah mo dafa jek jek kat gi melni mansour diom mi day jema jaay ser serlu té man lima ko wax lima ko wax ci nday ñang hmm. dana fi wër ay jigen digënté ngey xox ba ndakaru nday jël job duko gis ah bon talibé cheikh la ah mbokk mën la nek doomu uh-huh. bayam lu may expliquer Limu mu bokk ak mansour bari motax manila moo munul gis ku gëna bokk ak mom ni ndey ñang ba pare hmm. ndey ñang nak am bénéfice ah bon. dépasse wàcc na Mansour. Eh, alaaji. ndey ñang ndeyam ak wujju ndeyam ak baayam namuñu dara. <laughs> ndey ñan mooy ginaar. Ah. ndey ñang daanaka seen kër man laa njëkk a gisee ay 4 x yoo xam ne dañu koo rangale ba garage fees ba ca mbedd ma. ndey ñan Jóob la sant. <laughs> ran sa gën a néew ca la ñuy dawal ca kër ga. ana lay looy xaar. ndey ñang eh, càmmiñam yi ñii ay douanier ñii ay joueurs internationaux ñii ay entrepreneur man ndey ñang mi ah. yàlla moo ko catu mais ndey ñang ana lu manqué. ndey ñang mat na tabaski mat na juddu. ñang baala jooba juba am na kanam am na ginnaaw. Ah. waaye ñang moom ana lu manqué. <laughs> am na Maodo am na Wuli am na Soar. waaw man daal maa ko mayoon mën soor maa ko dindiwaat ana foo leen ne. <laughs> alaaj ba da nga ko bëgg a mee sa bopp. ana foo leen ne. noppil ah, ah, ah. Daouda. waaw c'est une bonne question. est-ce que. eh téléphone bi dafa seer wax leen ana foo leen ne. est-ce que tamit Neymar lay waajal. est-ce que du miite. bu leen salteel waaye bu leen salteel yàlla ngi bëgg a bokk mouvement bu leen salteel. mutation. ana fi ngeen ne ana fi ngeen ne. voilà gis nga laaj yi ñu jamono ji ci intersection bu Fédéral Lamine Gueye et arrivé fii vous allez observer un temps d'arrêt mais du yàgg kii di agent bi daal di leen di bàyyi ngeen di traversé bi intersection bi seulement on a une très longue file de voitures notamment pour yéen ñu bàyyi ko ba rond-point bu Grand Théâtre oto dañuy toppalante di la ndànk ndànk laata ñuy accéder fii ci intersection bi foofu ci rond-point bu Grand Théâtre également de l'entorse noté laata ngeen di wër le tour du rond-point et cela concerne les véhicules en provenance du côté de l'autoroute ndax oto ña nga ba ci kaw échangeur ba mais une fois ngeen génn ci jafe-jafe yooyu bu dee da ngeen dem rond point bu place la gare la voie dégagée mais bu dee da nam ma ñëw ci intersecteur Faidherbe bi ngeen ànd ak taxeelu Abdoulaye Diatta euh, beaucoup de difficultés tey ce matin te yow takku nañ ci bërëb yi fasanti ko ci na échangeur bu an jàpp fi nga xam ne mooy cité des eaux ak service technique bu an boobule y a des lenteurs à ce niveau so prolongé rek boo tëri yoon yaram bi foofu tamit jafe-jafe yaa ngi persisté sànq maa leen ko wax mu ngi tàmbaloon garo boor maraîcher dafay talal romb boulangerie Kapa bëgg a dem waaye ma nga yem nag ci passage ali boobu jëm cimetière Bel Air à partir de là sax mën nga fi jaaree dugg Dakar maanaam da ngay jaaree voie de contournement nord bu génnee la sur nord à défaut nag nga yaa fii da ngay jël rond point bu nga xam ne mooy espoir fi mu toll nag otaa yi dem di dégg te xat ci voilà ah ah alaaj da nga ko bëgg a suufu kat. lii lan la nii. alaaj yow da nga ko bëgg a suufu yow gis nga yow momu di di dem di joxe numéro Mansour ñu lay fay numéro 2000. lolu yeb yeb na ko te teus la te dina ko fi wax suba mom lay fay. dem ci xewi ñu nan la numéro tonton Mansour nga gis dir yank jeeg jeeg gi ah naan ko Aba numéro numéro Mansour de lañ soxla won ñun de dañoo yor suñu yaay ba nek kër ga. ñu bëgge Mansour fekk mom moo moo ko bëgg. coupé len coupé len no nice yéen ñaar simer non nice machine nice. Zik Zik FM. Entrez dans l'univers Arcos en achetant les smartphones et les tablettes super fun. Demandez plus à votre smartphone. Exigez le Arcos Titanium ou Platinum et profitez des fonctions Bluetooth 3G+, double SIM pour une nouvelle expérience du multimédia sur smartphone. Obtenez le meilleur d'Android avec nos tablettes Arcos 10.1 pouces et appelez directement depuis votre tablette. Le tout à des prix exceptionnels. Alors, retrouvez-nous vite dans tous les showrooms CCBM et Electronics et chez tous les revendeurs agréés Netcall Africa. Tous nos produits Arcos sont garantis 12 mois. Offre soumise et condition et dans la limite du stock disponible. Arcos, entertainment your way. yéen ñi nekk bitim réew seen aajo faju na su ngeen bëggee yónnee xaalis fii ci Sénégal taamu leen Small World Choice mu mën ko jëli ci bépp point joni joni fii ci Sénégal ak li ko wër àndi ci ak ay banque partenaire am Small World Choice mi ngi ci 160 dëkk ci àdduna bi ak li ko wër lëkkaloog joni joni fanaa xam ngeen joni joni soxla su teew moo ci gaaw ñëwati na fu bees de Samsung ñëwati na fas yéene leen bégal ci fête des mères yi waaw waaw bégal leen seen yaay yi bu baax jënd leen Galaxy Trend Lite bii ci njëg bu rax ci dolli ñu may leen carte mémoire bu 8 giga Samsung yamul foofu de fii ba le juin am na promotion téléphone yu yanj ci njëg yu amul fenn rax ci dolli boo jëndee téléphone ñu may le cadeau jox la ticket tombola ngir nga mën a gagner semaine bu nekk Samsung Galaxy S6 bu bi ak yeneen i xéwal kon boog toogaay jeex na ayca jox nañ leen rendez-vous ci suñu tante Samsung yi suñu bërëbu jaay yi mën nga leen xool suñu page Facebook Buumi dafa am tëralin ci kaw xéwal yi des waa PS day waaw ña ngay liggéey lu fi jëlee li fi nekk tey de jënal termine yéene kaay ñaar fukk lay jar Ousmane Tanor Dieng wax na ca biir journal ba de jënal termine yéene kaay ñaar fukk lay jar Abdoulaye Wilane day waaw bi solee mbala téemale kon reporteru RFM ba de jënal termine yéene kaay ñaar fukk lay jar Barthélémy Dias day danañu ko yóbbu ca yoon ah waaw ay panneau publicitaire yu bëree bëri daal la daaneel ca biir commune am jënal termine yéene kaay ñaar fukk lay jar maître Ousmane Seye day waaw ñee na toon sekk daal daanelaw ba yandoor Abdoulaye Wade da nga woon kër Aïda Ndiongue Alioune Sow ak Ousmane Ngom jënal tribune yéen Sa Thiès tey waaw wan ah, sama rakk ji Alaaji hmm? nee na ndey kenn du moom sama yaay maa ngi koy nuyu baax. Amar Amar Amar Amar yaay Soda Marème Amar Amar Amar maa ngi lay nuyu. Amar Amar Amar Amar yaay Soda Marème laay nuyu Soda Marème Zik FM. eh Fou Malade mon ami maa ngi koy nuyu bu baax a baax jaajëf Faye Pape Dia production maa koy nuyu moom tamit bu baax a baax. waaw waaw waaw waaw 7 juin la ah. ok d' loolu nañ ci dellu si waat Xaadim Ñang Sonatel Mbacke nee na naay seet ah. eh sama jigéen bi waaye Munaas Allemagne la bokk moom nee na ah kii moom sori na ah Oustaz Sarr nee na nice très bien yëmbal nee na nice allo bul salteel waa Dora aw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax nice good fine nee nañ nice hmm. bon. Euh, Dip Émilie Faye nee na dafa réerle moom attestation bac relevé bac certificat euh, nationalité ak certificat baptême ak lan classeur bu bleu ci la nekkoon koo gis na nga woote ci 77 346 76 26 kooku moom non nice dafa réerle kii kan la ni daado maa ngi koy nuyu bu baax a baax daado sama jigéen bi sama jabar ji sama xarit bi ñu bokk koñ maag moom studio Abdou Fall nice good fine Aziz studio Abdou Fall nice Alaja Panda koñ ba nice sama xarit bi Bouré nice Youssouf Fall Promzik FM nice bon léegi alaaji délégué bii nañ ci wax délégué de quartier délégué de kilifa la bàyyi ay soxnaam ak i njabootam kilifa la li ci doy waar mooy Thiès la ne woon lay dem mais ay téléphone ñu ngi leen di localiser Dakar Sicap Sicap Karaak ci ndakaaru Ndiaye jël jóob kon loolu alaaji doy na waar xiif gaa am ma commencé dugg nag alaaji de léegi sama accélération bi wàññeeku xiif gu bon dugg na ma léegi xiif gu bon moo jékki-jékki rek ne ma sax dugg lii nag la kenn xamul lii lan la bon ah alaaji euh, euh, ah Fou Malade dañuy def concert fële na la euh, rëbës ci prison bi. loolu tam xam naa ne moom suba moom dinañ ci gën a yaatal. jaay jaajëfaay Dame Ndiaye Colobane sama xarit bi. Euh, waaw waaw musaa Moussa Seye waaw jëwrin waaw waaw waaw Géejawaay waaw Cité Junko maa ngi leen nuyu baax a baax merci beaucoup merci beaucoup. Euh, jàbbe maa ngi koy woo. Hmm. délégué de le plus jeune délégué de quartier. Sénégal hmm. alaaji suñ koñ la dëkk. jàbba jàbbe jàbbe aaw sama xarit la Omar. waaw waaw maa ngi koy nuyu baax ñoom amuñu association yee laa yi laay ditaaw xanaa bu géej waay bi kese laa lay wax ni ngand na ñoom am nañ bureau xam nga ah waaw sama jabar ji day moom nee na yeewu na de waaye ma nga ca kaw lal ba ba léegi bokkatu merci beaucoup du ma tudd turam balaa cat di dugg suñu diggante wóorul yii ah, aaway dañ may liggéey léegi du ma leen takk ñu <laughs> noonu alaaji <laughs> naa toog rek jàbbe aaw nañ wax ci délégué bi alaaji alaaj nañ wax ci délégué bi délégué bi dossier la di yii lëf la di mag ah, ah, ah baax na bu mag ah, baax na ah mag ah mais yow délégué de quartier yoo xam ne alaaji yow coono li ñuy dund moom maar di taali Codé Dieng ah ah seen énergie famille Guédiawaye laa bokk merci beaucoup Codé Dieng Makka à tout à l'heure <laughs> Khadija asalem commerçant yi femme femme restauratrice yi nga xam ne bu ujaa ji demee Makka ndeysaan ñu leen di jox jox ceebu Sénégal alaaji waaw supp kànja ak maafe waaw nee na ñu ngi ziarte nee na ñu nice good fine nee nañ nice kay waaw waaw groupe bi yoonoo ca King Fat Palace Mamadou Fofana nee nañu nice good fine waaw waaw Zal Ndiaye ak waa Bato ba séeréer yi maa ngi leen di nuyu nee nañ nice good fine deuxième tës bi nag moom alaaji no nice ah oui sama xarit bi nee na ma xol seddati na hmm. nice nice boo sawaree rek mu neex eh <laughs> Kadio maa ngi koy nuyu. bon. Chimère. deuxième ah grand njëgaloo ngi nii bu ma rek ma kontaan. laaj am na ñoo xam ne bu ñu la wooyee rek. Uh-huh. nga bëgg. waaw waaw ñàkk laa woo erreur la. te erreur bu xasee ba am rek am na. <laughs> kon horreur la horreur la. <laughs> te njagaloo bu la wooyee rek nga kontaan. Ah nuyu naa waa Caaro gépp waaw. waaw lu tax ngay kontaan non non moom bula la wooyee moom alaaji moom nice. non moom même bu la bippee sax rek xamal ne. non no non nice nag non non non nice. non mu lay woo. ah doo dossier boobu dey dis ci rajo de. déggoo ma de eh da ngay xaar nag. non du ma xaar Bougane Gueye Dany nice. <laughs> de. ma xool non nice bàyyil jàmbur alaaji bàyyil Bougane mii. ci alaaji nañ la dax de. Mm. baax na mm. léegi tas tës bi Jóob la maire photographe mhm. et eh, yónnee ma message bi waaye di tàntal na sama maam sallallahu taala alayhi wa sallam la feede sallallahu fa soxla tànt bari ndax jant ba <laughs> foofu moom kuñ fa tàntalul noo te ko tàntal fii mu tàntal la fee du boobu acca nañ dem ba ci oustaz jëng Grand Yoff laa bokk eh, sama waa waaw waaw moom itam day am yënga programme bi eh bu mag sa Abdou Fatah sama genn wàll la Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin mooy ñëw chaque année alaaji laaj ma kan la ko tuddee ren mm-hmm. sama papa ndeysaan Serigne Cheikh Tidiane Aïdara ndeysaan barke alxuraanul karim oh. le douze le le douze wala le treize le treize samedi sama papa la ko tuddee ren bala balaa num wasifa mu gën a rëy junni mètre laaw ñu wax ko fu nekk te li ñu fay tudd ci yàlla laa ay turu yàlla li ñu fay tudd ci euh, di ko julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko fa jàng ci ay période salaatul fatiha ah ren de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin chaque année mooy ñëw mooy ñëw bu ren bi mhm. sama papa la ko tuddee macha allah dem si yàlla wa sallam surtout ku tedd ki ce acca aywa sumer deuxième tës bi alaaji def na lu baax de def na lu rëy wallahi rëy rëy la def alaaji hmm. ñii day seen baay moo dem tayle seen kër gi. seen baay. seen baay tayle kër ga. ak commerçant. commerçant ba nag fi mu nekk nii taxaw na. buur ñëw na banque ñëw na. <laughs> ñaan gi dafa rëy mais <laughs> dafa reetaan nee na nee na Ahmed yaag Mansour. yéen na leen yàlla sàmm na mu sàmmee woon golo gaag jawa jaag doom je <laughs> barke alxuraan ko dëgg la de eh sama copain bi ay mbay mbay studio Abdou Fall maa ngi koy nuyu baax ak ñoom Paa Omar alaaj dégg nga mm-hmm. ne mm. tey leen kër ga daal waa ku moomoon kër ga ah kër ga kan moo ko moom ku dul ki ko tey le ah, mooy tey le ko alay do deglu rek bala ma daaneel sañ nako sañ nako tayle do alalam do alalam do alalam ah. jamar rek domi yi ci ci lañ bokk la ci da nga nan kay lan mo tax mu tayle ko ak njabotam gi fan lañu wara mujjé <laughs> ak commerçant bi lan la def ci souf ba ñu ñew ba bour yegg ak bank ba doo laajte yoy yeb <laughs> ana doon du jigen ji ana may ba dafa jël gi tayle ko benn commerçant commerçant bi 35 millions lañu ñu waxoon mook sama pap mais problème bi leeruñu 100 pour cent ndax sama pap expliqué wuñu depuis 2009 la 2009 ba tey ñun affaire bi dañ ko lire ci soleil soleil vendredi 22 mai buñ ko liiru woon sax kon dañuy toog bañ ñu génnal kër gi léegi Banque of Africa mooy jaay kër gi léegi kër gi ñu ko war a jaayee 14 millions te à partir du 9 juin mooy vente bi léegi ñun dañuy bañ banque jaay ko keneen wala comme soleil bi ni ko nit ñi liiree ni keneen ñëw jënd kër gi génnee samay ay toroxal ko ci biti te ñun amuñu doole ju ñu fayee 14 millions cash cash. toroxal sama yaay léegi man lu ma bëggoon xam lan moo nekkoon problème bi ba tey ji sa papa tey la kër gi noonu bëgg ñu jaay ko. loolu nag moom moo ñu jaax mooy suñu problème ndeke kër gi 2009 la ba tey la ko tey la ci benn commerçant. bi mu koy tey la daf ko doon jël xaalis boobu da ko doon dugal ci lan lan. commerçant bi daf ko ci à 5 millions. léegi tey 5 millions yooyu moo waral ñu jaay kër gi fu mu doon nii pour jël ci 5 millions. commerçant bi remboursé wuñ banque bi léegi bii banque bi toppee commerçant bi topp ko topp commerçant bi ne ko fay nañ ci ba mu des 14 millions man amatoo loo may topp bàyyi naa la fa garantie garantie bi mooy suñu kër gi jaay leen garantie bi ngeen fay ci bor bi léegi garantie bi lañ ci 14 millions la ñuy jaay kër gi pour fay ci 5 yi. waaw déedéet fay banque bi banque bi moo woon 14 yi. non mais attends man xamoon lu ma jaaxal sa papa bi muy def loolu moom ñaata millions la jël 5 millions la jël. 5 millions rek la jël li ci tax moom léegi lu tax moom fu toll nii nag muy fay 14 kër jàmbur. parce que commerçant bi moo ko ëpp bi ñu woowee avocat dafa moo ko ëpp ay lijjanti moo ko ëpp ay dugg-dugg. moo ko ëpp ay laaxkat. léegi moom dafa jël kayitu këram jox ko commerçant bi commerçant bi waaw. léegi kon xam nga ñun ñoo kese ci noonu kese xam nga kon ñu ñooy perte léegi commerçant bi turam nekk fa kayitu këram nekk fa suñ kayitu kër moom fa nekk buñ ko def woon ci soleil bi ñu liir ko duñ ko gis. parce que banque moom kay banque moom kayit la xam. ak preuve la xam waaw kayit la xam léegi nag banque bi mu xoppee commerçant bi commerçant bi ne ko bàyyil naa la fa garanti garanti bi mooy kayitu kër gi bank bu jotu xaalisam day jaay kër gi jël xaalisam te vente bi à part du neuf la te wax dëgg fa yàlla sama yaay ne la wutul gudd ne la wutul bëccëg. mais yéen toogu leen ak seen papa mu expliquer leen réellement lan mooy problème ngeen mën a xam lan jaaxle moo tax ñu ñëw fii man sama rakk yi sax nanguñu ma ñëw ndax xamuñu sax luy tës xamuñu situation xamuñu problème ñu 94 lañ ñëw Kër Massar 92 lañ moom suñu kër gi ñoom xamuñu sax luy problème ñun jàngi lañ xam liggéey wàcc xamuñu problème nanguñu sax ma ñëw fii man maa sob sama sob bopp ko ba damay déglu Zik FM di déglu Ahmed aydara muy def te yàlla rek tax bañ suturaal sama yaay rek kenn ko génne ci digg nawle mi xam nga li gën a ñaaw kër ni mu tol ak sa njaboot macha allah ñu bëgg laa teg ci biti bëgg laa génne loolu toroxal nit foofu la mën a yem mu jàppale ñu même bu ñuy lebal sax ñu lebal ñu ñun ñu góor góor góorgóorlu fay xaalis ba banque bañ ko jaay keneen keneen jënd ko comprendre ndax keneen ku ñëpp doole mën na taxaw fay kaas ñu jënd ko ñun amuñu doole jooy ñun nañ ñu ñaanal banque bi wala ñu dimbali ñu ñu dajale lu ñu am ñu avance ko di ko def moratoire di ko fay ñun doom yi loolu tax ma ñëw fii dama jaaxle. mais yéen euh, jéem ngeen di gisante ki nga xamante ne moo di commerçant bi. commerçant bi ñu ngi koy wër pour porter ko plainte ñun ñu toppaat ko léegi fi mu ne dañoo bëgg a dem porter ji plainte lundi police centrale dem porter ji plainte commerçant avocat bi ñu ko woowee dafa ne dafa ëpp sa bopp dugg-dugg ëpp ko avocat ëpp ko xaalis. moom loolu la commerçant bi wax. waaw loolu la avocat avocat dafa ne commerçant bi da ko ëpp ay dugg-dugg ëpp ko xaalis ëpp ko lijjanti moo tax sa papa perte. comprendre fi mu waxee te pertement bi ci ñun lay nekk nekkul ci moom moom buñ ko génnee góor la am na beneen jabar bu dem beneen ko jabaram mais ñun ñooy am problème ak suñu yaay fan la xale yi di nekk te ba pare dafa yor ay xale yu ndaw ñu war a def bac troisième ñu war a def terminal xoolal ñooñu nga perturbé beneen jaxas seen njàng ñu war a def examen

te ñun nag buñ amul ku ñu dimbale te yàlla rek tax di nga gis ku ñu ëpp doole taxaw fay kër gi sama yaay gën ci biti te boobaa fu ñu jëm ku ñu fayal luwaas bu boobaa lii tooy kër kër gu pare kër googu noonu ñuy jaay ëpp na 14 millions wala ëpp na wa kay ndax R plus 1 la mi ngi nii lépp a ngi nii ci soleil bi xam xam nga bu doon caaxaan sax duñ ko def ci soleil vendredi mi ngi nii waaw fi ne man rek ak Ahmed ay dara jàpp ñëpp jàpp ñu dimbal ñu te yàlla rek tax fi sabilillah nañu dimbal te yàlla rek tax waaw loolu rek laa bëggoon waaw moom moom fi inshallah ok merci waay mm-hmm. wax nag alaaj mm-hmm. waaye am na mm-hmm. benn commerçant boo xam ne woo na ma. li ma xamal mooy affaire bi ni muy demee. waaw. ni muy demee. nee da ngay gis kenn koo xam ne day ñëw ci benn commerçant. jël ci moom xaalis ne ko mën ngaa jël sama kër sax yow comme garanti waaw. commerçant mën na dem ci mën na dem ci banque lépp xaalis. waaw quinze wala 10 millions ñëw lebal la 5 millions bi nag au mu jël place ma def ko garanti ca banque ba. Hmm. waaye kër gii lay ñëw daal di koy garanteel. waaw. Ah, boo fayulee tamit nag bañ yegg ca ca ca ca ca dad wax. cëppaandaw ja ca cëppaandaw la alaaji. banque bi lan lay gis moom. commerçant bi. li ñu ko garanti commerçant bi garanti woon salon de. Hmm. wala place de. Hmm. waaye sa kër gi yow yaa ne ko woon na ko ko garantee. déggoo ma de. banque bi buy saisir ku muy saisir kon. tubaab kayit la xam. lañ ko garanti woon. Eh, day caaxaan du foofu kaay de. la ilaha illallah. sama xarit bi ma dem ndooy madame Ndoye mi nekk mairie Médina de. waaw pochette am moom la fàtte ci benn taxi dimanche. cent cinquante cinq mille cinq cent. non taxi man na ko indi garaawul jarul communiqué. na ko indi ah. na ko indi dina ko bu ñu ko indee. non non ko indi. taximaan bi na ko indi alaaj man taximaan yi xam naa leen yow tamit alaaj man taxi laay jël. ci <laughs> mer. man taxi laay jël muy midi. Eh, taxi maa ngi di sangatu bayrab ji naax nga bëgg a defal waaye du sotti. taxi laay jël rarement laay jël tata wala car rapide wala Ndiaga Ndiaye mais man taxi laay jël aller retour. xam naa leen je leur connais. El Hadj Jinax daa toog. waaw. kenn tuddul Jinax. Jinax di kecc kenn faalewu ko. Jinax di dugg ci fauteuil di matt kenn faalewu ko Jinax dem ci sëriñ. ñaan bay rek. waaw ne ko maa bëgg daal nga sangat ma moo tooy ndax ni ma ni ñu ma ñàkk a fan yi daal euh, moom daal am na lu ne ci man. bare Bayre Moot laa bëgg. waaw waaw comme kay <laughs> ah sëñ bi sangat ko nekk bayre bi dafa gaaw laataa jinax di génn rek bayre bi jàpp na mu ne tëll fekk gétt muus taxaw. mu dugg ni ko serigne mouslay mouslay mouslay mouslay <laughs> fàddi mi tubu jeeg ni ko serigne mouslay mouslay mouslay mouslay ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na bayri bi ëpp la ma gàttoon nu maar di mouslay mouslay mouslay muslaay muslaay alaaji tax def lu baxam solo de waye <laughs> dama ne eh, taxi bo boo beugé ngemb laay li nga wuti mouslay mouslay mouslay mouslay aladi aladi hmm. yalla nu yalla sutra rek bo boole ci nit ñu bax ni sama benn xarit boo xam ne sama benn géwel ndeysaan <coughs> mbaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax mbaw maa koy nuyu mais dama ne mm. Super benn <laughs> benn géwél bu nekk fële géejawaay mm. nee na euh, kii jaañ euh, ay sama xarit bi muy toog xalifa rek nee na ma Ahmed yàlla nañu yàlla boole ci nit ñu baax ñi ma ne ko amin mm-hmm. nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ fee juddoo yaroo fi màggee fi te yàlla baaxal leen ma ne ko amin mm-hmm. mu ne ma amet kaña ndeyam sénégalaise la bàyyam sénégalais waaw mu juddoo fi mu juddoo fi moom kaña ñetteel leen di sénégalais <laughs> de kaña yi ci kër yi juddoo wuñ bi ñu indi leen. ay sénégalais lañu. comme ni xaru sénégalais amee ak bëyu sénégalais. kaña sénégalais la. ndeyam sénégalaise la bàyyam sénégalais la. te boo amee bay xont ko boo amee xar jëndal repas. waaw mais kaña. li muy am nationalité sénégalaise yëpp <laughs> alaaj saa bu kañ a génnee ci mbedd mi rek yet topp nañ birti birti du dóor <laughs> ba mu ne mu dee nit ñi di tiitaroo li ñu def tey kaña <laughs> kaña laa ni ndeyam la bàyyam sénégalais kañ a juddoo fi yoroo fi màggee di sénégalais. di sénégalais. am sañ-sañu am carte séjour. am am am nationalité am am carte d'identité am carte électeur te kañ fu mu génnee rek yar ja topp nañ ko. bër tët tët tët réel teel ba mu ne sedd ñëpp di ko tiitaroo téye sa gan nga te naan ko nii di ko wëndeel naan xoolal ni ñu def kañ a ngi tey. <laughs> waa alaaj lu tax ñun duñ ñu def loolu. <laughs> yow alaaj lu tax duñ la ko def ak si nit lañu. bakkan nga yor kañ a bakkan la yor ah, laaj ma tax ba ne Adama xamala moo tax ah. jëfam ju bon <laughs> alaaji kañ a nekkewul ci biir kër yi loolu yàq foo teg sa saako gerte mu ngeen mu ko boo dencee xaalis muy ay biye kaña bu ko jekkoo maar di taal da koy lekk jëf ju bon la dëkke bu deyee ci bërëb nit ñu tuxu kenn dootu mën a mooy <laughs> waaye kañaa bon te moo ne ndeyam ak baayam yëpp ay sénégalais lañ alaaji ñaanal <laughs> <laughs> yal na yàlla dooli jàmm ci biir réew mi. yal na yàlla yàggal fi mag ñi. sëñ bi ne yal na yàlla yàggal fi.